Man, my butt, nigga. Man, my butt, man, my butt, yo. I man, my butt. du ma ñoddi lu ma yorul ti bi king li mu moom la ñëw jël saison bi yëpp dama ko tëroon final yi tëlu ma ku bu mag bi laay jël caravane bi musul taxaw booy bu repp bay jéegi duñu freiné dal lay tël dum leen mooy ni 9 millimètres ci sa bopp li ngay mujjee dégg mooy tëtëf tëf dum leen des sal mu cat yém laay sukkër mu saf bu dee da ngay déggee si tat jam ñuy juu tout pour wax pour ñoom garab bu guy kenn du ko gësam mala suñ jata damay buddi ndeem yenn ko te ko samay mbagg doxox moom ne la genn kon yool daaj ji ay ndigu rappeur laay daaj ji loo mënul ak fi aji tey lay cax ba cax caaxi caxaat air bu ñet noppil ñëpp laay joomil fii ku fi yaakamti lal lal yàlla yàlla ji xeeb doole en ni waa léegi nag ku fi làmb daj yenu coow bu mag te lu muy laaj imposé samay règle kenn si yéen du gis baax bu mu la bett toroon ma lay fal da ngay dute ma jorox la gu say fan di nga laajte mbugal bi ñan lay dal laajte ñoo xam ne succès bi dañ see dal ku fi dugg dam lay passi passi baldaa da ngay mot ma reppi rof la gal-gal mais waxati tiiju te tegoo si kiñ dam lay tëddal taab sa taati par kaat ñu namuñu kaaw yaa tax yàpp moo ñu gën a lu ñuy doyee visa moo tax ñu émission budul man du doon kenn budul man ku doon leer sama loxo si ba góo ba tey waral adduna bi yëpp ñëwaat dina fekk ni si ba góo lu siy sama yoon si tubaab bu lab démb géej franchement budul man du doon kenn ay waay ay waay ay waay ay waay budul ay waay ay waay